Mm-hmm. noonu la demee. Mm-hmm. voilà euh, ba biir waxtaan bi di ma wax euh, ci Zahir ak. waaw comme tey comme tey dossier Sonko ba muy commencé. Mm-hmm. Euh, boo ko doon jàngat ci bëti Zahir rek day am nu muy demee mais da am na loo xam ne man bari na lu ma ci waxoon lu ne capitaine Touré mii am na lu ci nekk ci wàllu moom ci wàllu baatin dossier bi ci jëmmi boppam baatin mi ngi ci boo xamante ne bët mënu koo gis waaye baatin la boo xam ne da ci loraate wax naa ci ay wax yu bëree bëri ngi ci internet bi. loola moom man dama koy dem euh, daf may jaral ma jéem a xam lu xew. Mhm. su ma ko xamee nag wax ko. yàlla nag day dogal léeg-léeg li ngay wax euh, na nga ko gise woon bu dee teg nga ci ak maanu nga waxe ko ni ko ni la ko yàlla wane bañ cee dugal sa jëmm day méngoo en général yàlla dana la dana la jox dëgg ci li ngay wax mais bu fekkee nag da ko wax ngir napp nit ñi ngir euh, ngir jaay sa bopp yàlla mën na laa wan dara ba noppi ngay nga koy joxe ba kee dugal sa àdduna yàlla rocc ko moo tax nga gis sëriñ yu bari mën nañoo ñëw suba day taw parce que suba bu ngaa bëgg mu taw nga toog ci kaw bopp waa dëkk bi léegi yàlla du taw da bàyyi ba xam. day seetaan waaw. mais euh, yaa ngi yaa dugg ci dossier Ousmane Sonko bi. Mhm. ñu gis développement yu yees ndax ci aljuma bi. Mhm. Mhm. fësal nañu taskatu xibaar yi ne. audition amoon na bu siiri Ahmed. yow dossier bi tey jii ak anam gi muy doxee ndax yaakaar nga ne dañu àgg ci cappaandaw la ak liñ ci tudd. yëpp ak li ci tournoi yi ci mujjee am yëpp. waa dossier boobu nag bëgguma ci woon wax parce que ñi ko bind ñoom ñi ko bind. jubluwuñu ci lu dul euh, affaire list yeewi askan wi list benn bokk yaakaar ni enjeu bi demee bëgguñu lu dul tourner askan wi ci yóbbuwaat leen ci ay affaire aji Sarr Sonko nangam nangam loolu lañ ci jublu. ah moo waralaat audition. moo war non non audition am na parce que dalal nañ jamono yële faatu. waaw dalal nañ Rihanna. Mhm. dalal nañ euh, Mama Ba mi nga xam ne moom moo Adji Sarr ñoo bokkoon nekk ci biir euh, cabine bi keroog ba fa mhm. Ousmane Sonko nekkee. doog a dalal Sidi Ahmed yooyu yëpp bi mu am journaliste yëg nañ ko comme ni ma ko yëgee mais doo dégg ko ci wax mais comme que léegi nag liste Benno Bokk Yaakaar bi mi ngi bëgg a génn te Macky mi defar liste bi sax ñëwewul liste moom daf ko ragal a génne donte nag man fu bëree bëri xam <laughs> xam naa fam ñoom co investir rek na mu ko dugalee waaye. dinañ ñëw ci eh, loolu loolu dafa jur dañuy bëgg a défier nit ñi yóbbu leen ci Adji Sarr Sonko pour mën a génnee seen liste. Mm. ak euh, coow Ousmane Sonko mii dugg Ndakaaru indaale buru bu baree bari te xamuñu fu buru bi mujj yooyu moo tax ñu naan ay Sidi Ahmed audition nañ ko démb ak nangam nangam loolu nag dëgg la. Mm. nañ ko bind dëgg la mais dama jàpp ne man euh, am na ñeneen ñu war a wax yu ëpp solo. mais dossier euh, bi àgg ci cappaandaw dossier bi ah non mi ngi dox mi ngi dox xam naa ne nag euh, li ma jaaxal daal mooy ba léegi nii Adji saar moom ak Ousmane Sonko amuñu. maanaam Ousmane Sonko daal kenn woowagu ko. c'est normal nag parce que dañ koo woowoon am lu xew ci réew mi loo xam ne kenn ki nit ñi ñaanatu yàlla mu xew te loolu la ko indi woon mooy jël Ousmane Sonko di ko yóbbu ci kanamu yoon kese avant mu yegg li am am loolu nag ku mel ne ma xam di juge boo xam ne man li ma xam ci moom mooy ku responsable la ku ragal yàlla la aussi. Mhm. waaw ku jub la la ku ragal yàlla la man de loolu laa xam ci moom ba keroog may gis leneen lu contraire euh, xam naa ay responsabilités am xam na ne woo Ousmane Sonko dëkk bi euh, mën na cee jëlee ñàkk stable. Mhm. loolu mën naa jur euh, yeex gee bi ci desit mooy fi mu nekk nii nii nii man maa ngi koy ñaan mu bu fekkente ne euh, dossier bi dafa dox ba agsi ci Ousmane Sonko tamit na bàyyi ba après législative yi parce que su ko woowee jamono jii day politique ba mu ëpp. Mhm. te su fekkente ne dafa bëgg a jàppale liste benn liste yeewee askan wi ñu nekk majorité assemblée nationale na woo Sonko. su ko wooyee mu ngi mel ne ni ñu defoon local yi Bart investir nañ Bart ñi xëy woo ko Bart nekk actualité bi mu demee ci émission télé boo xam ne nii musul am man musuma seetaan mu am dix mille vues keroog vingt et un mille personnes ñoo ko doon seetaan kon da xam ne ñoom yokkal nañ ko code popularité bi ñu demee élection da leen a dóor dóor yu metti dóor yoo xam ne kenn musta xalaat ne lii mën naa am ñoom ñooy def promotion yeewi askan wi mhm. bii jàll gis nga ko Sonko bi mu ñooy def conférence de presse xëy suba ñu woo Bart ñu continuer ñoom ñoo leen di wutal liggéey ñoo leen tegal fooy dërul mais kañ nga jàpp ne dossier bi si lañ koy tëj carrément kañ nga bi dinañ ko tëj man ci li ma xam mhm. mooy jàpp naa ne àtte du ci am àtte du ci am waaw loolu moom laa jàpp man mooy du ñu taxawal Ousmane Sonko taxawal aji saar di àtte fan lay mujj dossier bi na ma ko gisee mooy ba muy départ dafa meloon ne lu jël yoonu jeng jéem a profité tëj ab député tëj ab ab ab opposant laay wax ab nekk gi mu nekkoon député moo tere loolu am ginnaaw bi fi yàlla dara dara tawut li ci xew lépp gis nañoo ko li am actuellement nii te nga mën koo seetlu mooy man ma xam jàllo li ma gëm mooy bu fekkonte ne caaxaan rek moo tax ma ki sàll di di di wala ko ko caaxaan la bëgg du jël ma xam hmm. waaw du ko jël loolu moom xam naa ko gis nga bi mu ñëwee léegi tamit man ni ma gisee mu doxalee ko euh, lépp jaar na yoon am na daal lu ma lu ma xaw a lu ma xaw a jaaxal tuuti rek démb. ci bi ñuy déglu Sidi Ahmed. mooy lu tax euh, Amary fay mi nga xam ne moo fay nekkal procureur de la République Amary Faye confrontation Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr ma nga fa woon. Mhm. boo xoolee la gën a sonal loolu question yi fa ëpp doole moo ko doon joxe. Mhm. bi ñuy dalal Mama bi ñuy dalal Fatou bi ñuy dalal Rihanna yëpp ko wuute. Hmm? démb bi ñu dalal di Ahmed moom ñëwul. ñëwul waaw lan moo tax ñëwul te moom présence am foofu am na lu bëri question yu mu waroon a dóor Sidi ak am na lu tax lu mu fa waroon comme ni mu ko defalee ñëpp wuta woon a ba ci ki nga xamante ne dafa am lëkkaloo ak waa APR rek mu effacé wu loolu dafa am dafa am doute yu muy indi. Mhm. man loolu daal jaaxal na ma deuxième bi ci des mooy Sidi Ahmed ci boppam. nekk na bërki euh, ci biir ma xam jàllo di xondo ci affaire investiture yi ni mu demee campagne bi waa APR dañuy lii nangam ak nangam. ah bon ba gis bi naan ko yow xaa kon yow nekkate politique da ngay moom loolu kii na am na fa itam yu bëree bëri yoo xam ne am na fa parce que moom moo njëkk a jël turu Dior Diagne. Mhm. maître Dior Diagne dugal ko ci dossier bi moom moo ne Dior Diagne moo bind plainte bi. mais bi mu demee moo ko njëkk wax. ca ca ca euh, brigade de recherche moo njëkk bind ne moo njëkk ne Dior Diagne moo bind plainte moo ci indi turu tey mu ne moom xamul Dior Diagne ci des mooy euh, te jaaxal ma comme dim tey la xew tey la actualité euh, hmm. baal ma ma ñëw ci rek. comme comme tey laa njëkk am occasion wax ci mooy Sidi Ahmed moom Adji Sarr ci confrontation bii Adji Sarr mu ngi def ci koor gi dafa wax ne. moom euh, Sidi Ahmed Adji Sarr accepté na ne moom Sidi Ahmed daan na dugg ci biir cabine bi Sidi Ahmed nee na mosu faa dugg. Mhm. am na bu nga xam ne kii def na dañ leen fekk ci kaw terrasse bi mu ne ko tonton Ibrahima moo ñu wax yëg leen ci kaw. Mhm. te booba nee na Adji Sarr na moom ak Sidi Ahmed la. Mhm. Sidi Ahmed moom nee na mosul dugg foofu dégg nga. Euh, Sidi Ahmed nee na mosul gis tonton Ibrahima mosut dugg Soyet bu te te loolu Adji Sarr moom nee na Sidi Ahmed dugg na Sidi Ahmed nee na dugg. kon ñoom ñaar loolu nañ ko xool ba xam. Mm, li ci amaat solo mooy Sidi Ahmed nee na moom moo ci dugal Mamour Diallo ñu nekk ko ci doon dugal Mamour Diallo mu ne waaw euh, dama doon wut ay góor euh, féministe yu ma jàppale di wër féministe ba dem teere ji ca Mamour Diallo Mamour Diallo moom kañ la nekk ab féministe wala Mamour jigéen la te yëguñu ko <laughs> ah, dama doon wër féministe mi nga ne ah. dama doon wër euh, dama doon xam nga boo yoroon benn information doon wër journaliste dem TFM dem seen TV ñu xaw a yeex ma mujj wal fajiri loolu d'accord mhm. waaye yow nga ne journal euh, journaliste ngay wër nga dem seen euh, TFM dem seen TV dem mujj ca Margo ba wala jumaa ja loo fay wër dëggantaan loolu dafa contradiction mhm. wërta woon ne moom damay wër ay féministe yu ma jàppale hmm? waaw ak sax yow dossier boo xam ne demagul sistis hmm, ma defe ne man ku ñuy violé justice moo koy jàppale mhm. wala féministe yi ñoom da da la bëggoon jox dossier bi pour ñu politiser ko xam nga loolu dafa xorom maanaam yow dangay gis benn xale bu jigéen bi ñu violé mm. jëloo ko nga yóbbu ko justice mm-hmm. ñu attee ko tegal la ko ci yoon mais ngay dem di wër ay féministes yu looy doyee féministe mm-hmm. féministes yi ñoom luñ mën ci ko ñu violé dem nga wër féministe nee nga amoo féministe léegi nga dem wut Mamour Diallo féministe la nga yóbbu nee Mamour Diallo la ko dem yóbbul mu jàppale ko mm. ah aussi nee na moom met oto médecin bi <laughs> yow nga nekk viol bu nekk Dakar nga dem ba Louga di wuti ku la jàppale ñu <laughs> ah, nee na oto bi médecin bi oto oto bi ñu kiiwee nu mu tuddati oto bi doon yóbbu Adji saar nee na du oto Mamour Diallo nee na oto médecin bi la médecin bi ñoom nee nañ Mamour Diallo oto Mamour Diallo lañ leen jël see mooy. gis nga affaire yi ni mu tëdd noonu. Mm-hmm. loolu lépp rek li ma lay wan nii mooy Maham Diallo. bu fekkente ne Ousmane Sonko dafa yaakaar ne moo ko gën a moos. Mhm. wala Macky Sall yaakaar ne moo gën a moos maxam xamuñu maxam maxam nit ku yàlla may la ci wàllu xel ma wax la ko. kon bu fekkee yoonee yoon rek ma jàpp naa ne lii nii ma wax nii rek doy na sëkk ci ne lii manees na ko dajale def ko nooliyee mhm. ñu jàll ci leneen. mais nooliyee ñu jàll ci leneen Cheikh Bara ndax du mhm. yomb. lu lu ci ndax ay euh, bakken rot na ci. ci xiiroog ngaayo goo xamante ne taroon na